li ñu tàmbaloon ci opposition bi injure saaga euh, terrorisme euh, ci anam fànn bu nu ko mën a natte pour que au moins ñu am une opposition républicaine. bon lu ma gis euh, xam nga une fois n'est pas coutume. Hmm. on ne peut à partir d'un fait isolé. Hmm. bu dee ñaari nit rek bon peut-être ñoo wax loo xam ne d'accord ci mënuñ defa caractérisation généralisée xam nga. Hmm. parce que man lu ma gis fii ci opposition bi au contraire ñoom ils sont plus que républicains. parce que nee naa la Seydina Mohamed. fii li ñu fi war a wax bëri na. boo xoolee gars yi ñu ngi toog ne ñoom dañuy xaar euh, ñii ne 100 jours la ñuy xaar. ñii 3 jours donc pour man. te loolu xam nga fu ñu ko teg sax principe boobu tam. dañuy xaar 100 jours ah. Mhm. bis bu nekk. Mhm. nga gis euh, ñi ànd ak régime bi di def propagande kay. et force le trait ah bon. am na sax ay taskatu xibaar yoo xam ne dafa mel ni ñoom xam naa seen wàll la ñuy xaar ci nar bi loolu rek dañuy xëy di def temps yi mm-hmm. taaxuraan parce que loolu la leen xamee kii nu mu tëdd di taggaate mm-hmm. ah? mm-hmm. waaw kon ñu ne kenn bu critiqué alors que am na ñoo xam ne ñoom ah ñi ngi ta ñi ngi tagg di jaay boobu ba tey li ñuy wax dara du ci dëgg dara du ci dëgg dara li ñuy wax yëpp ay manipulation kese la bu bàyyi dara du ci dëgg waaw ñu ne kenn bu mu critiqué mais kay appel à candidature bi kay wax dëgg yàlla nag loolu parce que nga taxaw wax ko waxati ko ne man su ma faloo poste yëpp dañ appel à candidature. waaw boo ko deful nag wax dëgg yàlla nag sa waay ku gis ne nen nag ne nen a ngi nii. wala. Hmm. Hmm. Hmm. façon bi ñuy nommé non seulement appel à candidature mais profilé est-ce que l'homme qu'il faut est à la place qu'il faut problème la loolu il faut ñu waxoo tamit. léegi moo tax ma ne sànq man pour man opposition bi ma gis nii sax ñi ko nekk de fait quoi naturellement opposition. ils sont plus que républicains ma si ñoom xamal naa la sànq fii ñi nga xam ne amuñ posture républicaine ñëpp leen xam. Euh, ci ci ci posture opposition muy injure rek ak. Euh, waaw voilà waaw ñoom ñoom mosuñu ñi ma gis moom ci ay Caro Alassane moom ñu am sama grand Caro ñoom ñu yaru lañ ñooñu. <laughs> ah ñooñu ay Déthié Fall ñooñu bon bu dee xaw ma <laughs> yaakaar ne ci ay opposants lañ xam-xam lañ ci yar nga leen xam ak teggin. Hmm. comme ni sëñ Ndiaye mii mën rek xam nga. waaw hmm. parce que valeurs yooyu mooy valeur sénégalais yi. Hmm. yooyu la ñu xam quoi léegi nag bon lu tax euh, waxaguñu man principe bu 100 jours yooyu laa xamul fu ñu ko teg parce que madame en lieu et place d'une déclaration de politique générale. Hmm. moi je m'attends à une déclaration d'incompétence générale. mais lu tax. non lu ne ñu ne tële na ñëw mënuñ ko loolu laa rek ñu ne mënuñ ko kay tële fépp partout. <laughs> loolu damay laajte rek man loolu laa gis njëg yi mënuñ ko wàññi. inondation yi joxuñu solution mais ci njëg yi pay bi tamit il est économiste mhm. Mhm. waaw li nga wax nga baal ma foofu point bu am solo nga wax on est d'accord mhm. euh, les maux dont nous dafa am de causes structurelles depuis Senghor ba tey xam naa ko nga ne nga ne non pas avec Macky Sall Banque mondiale bërga démb am na rapport bu mu génne en termes de volume d'investissement dans les infrastructures privées Sénégal mooy deuxième en Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud avec trois trois cent seize millions de dollars d' investissement privé ci cinq dernières années yi donc Macky Sall yaa ngi wax sànq bor bi ça ne date pas de Macky Sall bor bi ñaata la tolloon soo Abdou Diouf ñaata la fi Abdou Diouf bàyyi bor bi en terme de pourcentage ñaata. j'ai pas le chiffre. 78 pour cent. parce que c'est une dette structurelle da nga koy wax man d'accord ak yow. je pense c'est à corriger. Ça, non c'est pas à corriger c'est à vérifier pardon. je pense c'est à vérifier c'est énorme. c'est c'est ouais, justement c'est énorme. ça dépasse largement il y a une initiative pour l'effacement partiel de la dette. ça c' est vrai. Idrissa Seck moom la négocié woon suwaat c' est vrai suwaat. waaw moo tax parce que bor bi dafa fooroon ba après ñu négocié ñu baal ñu bor bu bëri. bu mhm. fayee donc mais yéen ba tey ci seen discours dama doon xaar ngeen wax ñu yéen par exemple comment lutter contre l' endettement mais bu dee yow sa premier acte de gouvernance mooy nga toog ma Matar Diop Banque mondiale. le visage du système de Bretton Woods que vous prétendez parce que li ngay wax nii pour mu dakk il faut ñu revoir reprofiler suñu relation ak Banque mondiale ak FMI mais ngeen njëkk a comme premier acte de changement mooy ba banque mondiale kon kay la woon du woon ni non seulement ki ngeen toog ak ñu ne toog muy dox jeex na ñu ne kon gars yi dinañ jóg di dox andi fi dara. ngeen jóg ngeen jóg di dox fu ngeen jëkk a jublu mooy FMI. il paraît que même banque mondiale mi ngi joxe joxe une enveloppe une très forte enveloppe. waaw pour ce régime. pour ce nouveau régime. c'est à vérifier. waaw hmm. vous avez parlé du Brésil de Lula. Hmm. oui chez Lula il y avait un schéma clair par rapport ak politique vulgaire systémique bi fi amoon. nga jël ñeneen Mahathir bu Malaisie. il a commencé par mais yéen. Lula a commencé par quoi. comme lan ban ban aspect par exemple. Lula a commencé exactement comme on a commencé nous. c'est-à-dire il a poursuivi les engagements du Brésil avant d'aller vers les réformes structurelles. c'est ça la monsieur xaaral xaaral te ñu ñu xam nga ñun. Ndiaye Ndiaye waa ba Ndiaye c'est un temps de parole qui m'était parti. vous avez <laughs> affaire à des dirigeants allez-y partout rek Ndiaye dafa kii quoi mm-hmm. xaaral ma ñëw Ndiaye. Mm-hmm. xool ma ne waxuma loolu dama ne cin bu noree neex. bu mm-hmm. baaxee xeeñ. da ngeen génne ay axes prioritaires boobu ba tey yéen campagne wax man lii seen programme man seen programme li ma ci gis ay plagiat la comme la banque nationale de France d'investissement de France ngeen jël plagié ko tuddee ko banque nationale d'investissement du Sénégal vous en êtes où avec cette banque là Mohamed ils en sont où avec cette banque. deux mois donc donc xaaral xaaral defal ndànk rek non defal ndànk wax ngeen de da di créer banque nationale ne c'est tellement irrationnel yéen déjà structure yi ngeen wax sax. da ngay gis euh, loo xam ne dafay am euh, ay chevauchement ci biir. Mhm. mais encore que même dispositif bi ngeen fekk yéen a fay nommé ay nit. beneen politique intéressé ku nekk xam na ne DER pour structure la bu fi mag Sall tegoon pour politique jam élection présidentielle deux mille dix neuf ngeen teg fa suñu yaay ji ay dëmbooj rek xëy tam dafay politique rek <laughs> wala. emploi pour les jeunes ñu ne lan financement emploi des jeunes. Mhm. bon man je crois que je respecte beaucoup madame Aïda Mbodj parce que mhm. ma respecté. mais man damaa defoon na ñu tegoon ko sax ci wetu président Diomaye Faye mu koy conseillé ci affaire état ak yooyu. pour man loolu moo ëppoon njëriñ maire bi fi ñu ko def nii quoi pour man. donc monsieur Ndiaye Brésil bi ngay wax kay. bu Lula Macky Sall moo fi andi ay politique am les bourses de sécurité familiale ku nekk xam nga c'est inspiré ci modèle Brésil. vous voyez léegi li Brésil def ci agriculture dama la ko nangul loolu. parce que sax xam-xam la tam quoi du ma ci sori ak yow. yaa ma gën a mm-hmm. mais xam nga ne yaa may dégg moom suñu bay bi tey. lan moo ko sooxeel mooy FMI ak banque mondiale. très bien alors bi ngeen faloo ba tey yéen FMI ak banque mondiale ñoom ngeen jublu. c'est bien alors euh, parlant Mbaye Ndiaye. Euh, justement euh, ba ñu lancé campagne. Euh, agricole bi ba léegi mi ngi bëgg a yàgg avec euh, de très bonnes décisions ñëpp tàccu mais euh, aujourd'hui les syndicalistes autour de de l'agriculture nee nañu ba léegi mbir sedd séddale dafa yéex te loolu mën na impacter ci seen ay rendement ci bu ñu tollee ci ci dajale lu ñu bàyyi mais est-ce que aujourd'hui duñu baral mbiri pour que ñoom it ñu gis seen bopp parce que le temps euh, xaaru leen te dugg nañu ci nawet bi daanaka. boo xam nga euh, juste pour ma relancer waat ci fi mu jógee. Mhm. ñun nous sommes un gouvernement boo xam ne ñu fi ñëw du ñoo xam ne dañu xëy rek te bi daanu si biir c'est des intellectuels c'est des gens calés. Mhm. yoo xam ne xam nañ fi ñu jëm. donc naturellement lépp li ñuy def on associe tous les secteurs on associe tous les acteurs la bëgg a wax. Mhm. syndicalisme lu am solo la on syndicalisme mënoo ñëw ci ab secteur nii rek def euh, non. day ñëw apporter moom li mu xalaat. Mm. donc c'est naturellement que les autorités agricoles vont échanger avec eux et trouver les meilleures solutions. Mm. donc loolu noonu je pense que c'est ça. non non non sa vie waaw ñëwal sama laaj bi. Mm-hmm. sa laaj sama laaj bi mooy. Mm-hmm. ba campagne bi tàmbalee ba léegi mm-hmm. séddale léegi dafay yéex ci monde rural bi. aujourd'hui ñun du du nu créer. le monde rural ak baykat yi ñoo wax ne. mbir yi dafa yéex yaatoo ñu bëri jotagoñu te loolu mën na am jeexital ci si rendement ñoom seen rendement fan la ci ngóor gi toll. xam nga man li ma leen ci mën a wax li ma leen ci mën a wax mooy ñun on est arrivé au pouvoir on vient d'arriver pouvoir très rapidement ñu indi 20 pour cent li li fi nguur yi doon weesu daan def daaw 100 milliards ñu teg ci 20 milliards muy 20 pour cent. Hmm. donc <coughs> pardon donc loolu déjà. c' est vraiment wane na ñun am nañ am nañ benn kii comment je vais dire une très bonne intention. ci mbéy mi ci béykat yi. man mi je viens de la région du Sine Saloum. Mm. donc euh, su ma waxee béykat yi man maa si jiitu. maintenant nañu xam ne yeexaay googu incha allah bii lay dakk parce que tey soo leen xoolee ci 23 mesures yi nga xam ne le gouvernement a décidé de le faire bokk na ci li ñuy wooyee la digitalisation la digitalisation. Mm. loolu noonu ça fait ses preuves au Nigéria Nigéria ñoom bi ñu ko defee. en fait ça a vraiment aidé à la à, à augmenter la rentabilité même. ci mbéy mooy mooy par exemple béykat bi léegi du am.